Mbàkke baari gaaw la baayam fi Mbàkke baari gaaw la baayam fi Mbàkke baari gaaw la gonte daaru dem Gànnaar roy la baayam bugli woon ci réew mi bugli ko nag moo am duma woy li man mii pendal mu gën tubay la jana araamal metteel ga mu gën ka ñu araamal déglul ma wax la keroog Seex Bamba gonte a fandar war peke ngir yeneen ba ngir sodaal ilal bi daali ngir bëgg ramuru yëful janaali ngon tulaata Seex Bamba dugg na gaal gu nu naan ban fan dagana talaata jaay fanweer fan teweer wax duñ siyaan ko naan fasangaar tongoor wax ma wax la gaay sant woon jom gannaar ànd ak Sëriñ Tuubaa te ñëpp jam ar dikkal Sëriñ Afe rakam mu jiitu sëriñ Mamar Penda al xam ak sëriñ Masamba xarit Joob ak Seex xarit Joob ak Njuugu Njaay Moor xarit Ñang bay togg togg togg Soxna Cissé Ndongo dëgg taxaw dëgg taxaw fi kanam Serigne Touba dongo ni ko Serigne bi dama bëggoon nga def ma sa takk ndeer bi foo jëm nu ànd ma yal sa dar bi mu ne ko dellu te ngi ne ma daa an an dellu te dellu ngeen ni mu daar man ah ah ah te xam ne léegi ma ñëw léegi ma ñëw bisimilah wa tafala ah si andu xel islam حزب شرطي فحب الجنون مسيس الدنغا خلا خمال مسيس الدنغا خلا خمال منزل جبا كنت بسمين دقل دباي لما يترى لا سرا سرا يان فمن دو سونو كو خامي دو توب دقل دو باي ترى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mbokk internet yi Baol Times TV ñu am mbégte contentement bu baax a baax comme ni ñu ko defee saa su ne rek di leen toppal lépp luy actualité ci biir réew mi ci bitim réew mi tey tey euh, ñu ngi fii si kër Cheikh Ibrahima balu Babul Mouridine si ndog yi nga xam ne sa sa àjjuma rek euh, suñu mbokk Baye Fall lañ koy faral def ñu ngi si suñu kanam suñu waajur euh, suñu sëriñ suñu jëwriñ si si yoon yi muy sëriñ mbay Ngiraan Baye mbay Ngiraan tey tombeek ajuma ji ñuy togg ndog yi fii si kër Cheikh Maam Cheikh Ibrahima Fall mu mel ni bëri na ay ay waxtaan yu bëri nga xam ne daan dégg nga ko si waxtaan est-ce que mën nga ñu see dékkalaat as tuut rek waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di leen sant di leen jaajëfal itam waaw ndogu yi moom Serigne Touba ci jëm moom moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall te itam lu yàgg la lool Cheikh Ibrahima di togg di ko yónnee Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax boo seetloo jamono yi sëñ Touba nekkee ci géej gi ci Mayumba sëriñ Touba ci jëmmam nekk foofa di fa liggéeyal yàlla ak yonant bi jamono yooyu Cheikh Ibra Fall mi ngi ndar waaye jamono yu bi Ibra dafa daan jënd ay xar xarit la biir di leen yar xar yooyu Cheikh Ibra da ko daan rendi buñ ko defalee suusal ko ba dawal gi ñor xomm mu jënd ay bërigo barigo yu njëkk yooyu nga xam ne barigo yi dénkale yatti ndomba la daan am yooyu weñ moom la bi la daan jënd jënd pii si perkaal su suusalee ndawal gi ba mu ñor mu sotti lal perkaal bi ci biir barigo bi ba mu génn mu ñu sotti ko ndawal ba mu fees daal di koy lem dal di koy suude tëggam bu ñuy wax bàyyi gaay yàlla moo daan suude bërigoy ndawal yooyu mu di ko yónnee sëñ Tuubaa ca Maayomba kon Cheikh Ibra yàgg naa def loolu bi sëñ Touba ñibbisee ci géej gi ba ñëw njaareem nag la woo Cheikh Ibra bés mu ñëw mu ne ko damay bëgg am gan te bëgg nga toggal ko xéewal nga defaral ko ko loolee nag mooy weeru koor boobu mooy waaj a teru te sëñ baa weeru koor mu fonk ko lool fonk weeru gàmmu lool ndax weer wi ku ne xam na ne ci la alxuraan wàcc ci la guddig laylatul xadar nekk muy guddi gi alxuraan wàcc. moo tax sëñ Tuubaa fonk ko fonk koo xam ne moog weeru gàmmo wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi feeñ jamono ak weeru safar wi nga xam ne mooy weeru màggalu Tuubaa yetti weer yii weer yëpp weeri sëñ Tuubaa lañ waaye yetti weer yii ñoo ci ëpp lépp boobee nag Cheikh Ibra sëñ Tuubaa sant ko mu toggal gan gi te gan gi moo doon weeru koor ca la tàmbali nag ndogu yi ñu di ko def ba bisab tey jii njabootam gépp fu ñu mën a nekk bu weeru koor teroo ñëpp ñi ngi togg dogu kii nag mooy sëñ Amdi Khady Fall di xalifab Serif Assane Serif Assane nag moo topp sëñ Modou Safal ñoo bokk ndey ak baay mi nga xayee moo jëkk a taxaw ci njabootu Cheikh Ibra Fall gi moom nag saa su ne weeru koor taroo nii lay def danañ togg ci ay ganaar loo xam ne eh, daaw dem nañ ba agg ci fukki junniy ginaar yu tegal fa lañ bàyyee woon te fuñ bàyyee. fi ñuy tàmbalee da koy ëpp fi mu ne ren jii bisub tey jii danañ danañ togg lu ëpp fukki fukki junniy ginaar nag yi ci jëmmam <coughs> noonu lay toll te nag yi jar un million ak ay huit cent mille yooyu nag rek la soxla yooyu nag faaw danañ ci wut téeméeri nag wala juróom-ñaar fukk waaye du manqué mukk tàmbalee juróom-ñaar fukk jëm kaw gàtt yi nag moom do léeg-léeg duñ ko lim sax. ci kanam tuuti fi mu ne gis nga génne nañ basang yi ñuy lal ci kanam tuuti bu ñu génnee lalee basang yi ba tàmbali di andi ndab yi ba sëñ bi génn wala mu yebool ay rakam ñu ñëw ji jël morso yu weex yi nga xaye ne ndimbal weex la sëñ Tuubaa daan lal ca bëri goya di ko suuree ndawal di ci sotti ndawal gu ñor ñu di ko yónnee sëñ Tuubaa moom itam morso yooyee la ñuy jël ñoom morso yu weex la ñuy muur ci kaw ndab yi ngir ëmbe ko ndab yi sëñ Assane dab yi muy def da di commande da di commande dañ leen liggéey bitim réew waaye du doon bool yu nekk fii sax ndax bool yi daanaka bool benn bool boo ci xam ne bii du la cay nekk ci ay ganaar dana mat juróom fukki ginaar yu bokkut ak la cay lañ cay sotti ci ay nen waaye loolu lépp nag mu def ko rek ngir ndigalal Cheikh Ibra Fall la nga xam ne jokoot na ko ci sëñ Touba ci la jabootam gi nekk ba bésub tey jii di ci liggéey rek ci saay ak ci baatin du joxew ñam nag Cheikh Ibra daa waxoon ne soo bëggee dab góor yàlla yi da ngay joxew ñam ndab mooy tax a mën a dabe te it togg joxe yàlla da ko digal yonant bi ci alxuraan bu yot xii moona ta ama alaa ubi miskinan wa yatiman wa asiran inama nutimkum li waj ilaahi laa nuridu minkum jasaan wala sukora loolu alxuraan yi yàlla moo waxoon yonant bi ne ko del wut ñam bu baax di ko joxe te ma tax bul bëgg ñu fay la bul bëgg sant la defal ngir man rek loolee nag la Serigne Touba digal Cheikh Ibra muy togg di jox doomu aadama yi ñuy jëfandiku soxlawut ku ko ne jërëjëf soxlawut ku ko xool wala dara loolu rek ci la nekkoon ndax euh, sëñ Tuubaa noon na Ibra Faal euh, su ma joxee ma ma ma ma ma kos almet teg ca ak ma jëfandikoo ñoo yam képp ci xolam moom ba mu ko liggéeyee ngir sëñ bi joxe ko rek la ca noppi ñoomit it foofu lañ ne fi mu ne togg yi duñ ko mos bul defee ne danañ ko mos de déedéet duñ ko mos ndax Cheikh Ibra nee na loo xas ba mos loolu aw des la kon aw des nga jox sab sëriñ ndax moom mos nga ko ba noppi fi mu ne li ñuy togg duñ ko mos moom dañuy togg yeneen i togg fële yoo xam ne ca la ñuy jëfandiku waaw maanaam boppi ganaar yi daal danañ ko dajaleeg tànk yeeg laaf yeeg yooyu danañ ko dajale moom def ko ci ay ciin ay mbana ne togg ko bu ñu noppee moom la ñuy séddali nit ñi ñi nga xaye ñu di liggéey ci bay Faal yi ñooñu loolu lañ leen di jox ñu xéwloo ko waaye jëmmi ndawal bu xonq wala ganaar gu baax kenn du ko laal kenn du ko laal duñ ko mos ndax nee nañ loo mos rek eh, di ko jox sa kilifa boo ko aw des nga ko jox te aw des nag koo jox sa kilifa. kon gis ah, saa su euh, euh, bu ñëw rek am taxawaay bu mag a li nga xam ne mooy euh, ndog ci ren taxawaayu sëñ am di Modou Mbenda mooy xalifa Cheikh Ibra Fall tey moo mag ci mboolem sëti Cheikh Ibra yi moo ci mag soo demee ngoon gu ne danañ togg ndab danañ togg ay ndab andi njaareem ci kër sëñ Bassirou Mbacke gii. danañ togg ay dab yóbbu Touba fa sëñ Mountakha mii sëñ Touba tey ndax gannaaw njaareem la dab yi tàmbalee woon moo tax kuy kuy Cheikh Ibra doo bàyyi mukk njaareem ku fi ne rek faaw danañ def ñaari ñaari ñaari yu tolloo ñii dañuy yenu wut si njaareem ci kër sëñ Touba gi ñii yenu wuti fu sëñ Touba nekk tey jii nag sëñ Mountakha moo fi nekk mag si sët yi mooy sëñ Touba li ñuy yenu di ko indi njaareem danañ yenu lu toll noonu yóbbu ci sëñ Mountakha waaye fii nag rakkam nañ fi fekk sëñ Fallou moom sëñ Basiiru moog sëñ Muntaxaa ñoo bokk benn baay moom la fi sëñ Muntaxaa bàyyi waaw sëñ Fallu la fi bàyyi bu ñëpp ñëwee ñoom lañ fi la ñuy jàngi fun ko bi itam ful ko ma soon bu ngoonee da nga dégg ñu di ko jàng foofu nañ ko daan jànge ci jamono yu Serigne Touba di ko jàng ci jamono yi sëñ Basiiru ba jamono yu sëñ Moussa Basiiru ba léegi ñi ngi koy jànge noonu liñ fi daan andi ci ndogu it kuy kalifa rek faaw ñaari ndogu ngay def bii dana ñëw njaareem bii itam dana dem fu kuy sëñ Touba mu nekk rek ñu fekk ko foofa yëti ko ko waaw yii nag yii nag nag fu leen fu leen sëñ bi wax rek bu nekk sëñ bi nekkee bu leen ne yët leen ma ko ci kër sëñ Tuubaa mag moom nga ñu yóbbu ko fa bu fekkee ne daaru mi na nekkit ñu yëti ko foofa rek lu mu ci santaane ñu def loola waaw. la gërëm la Baye Ndiaye. waaw waaw di ñaan ci bàcceeg Serigne Touba suñu borom ñu ko nag sëñ am bi ñang mii ma dendal. yaayam Cheikh Ibra Fall ko jur. maam Roqee Fall ak sëñ Ablaye faal Ndar. ak sëñ Fallou Fall mi doon taawub Cheikh Ibra ñoo bokk ndey ak baay waaw kii setu Cheikh Ibra waaw ndax doomi Cheikh Ibra ju jigéen a ko jur waaw kon mën nga koo andi